salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokk internet Hann TV ñuy nuyu ñëpp si seen tur ak seen sant di jaajëfal ñëpp tey si seen émission invité ñu am benn ndaanaan koo xam ne kenn dootu ko présenté si li muy def man li muy def macha allah dañ koy bàyyi juste mu nuyoo ñu xuus direct si waxtaan bi Djibril nuyu nañ la. fay nañ leen yéen waa Hann TV di ñaanal adduna bi di nuy sama fans yi di wax sama yaay fu mu tudd yàlla na suuf oyof ci koom. sam papa fum mu yalla di leen nuyu di leen dalal di nuyu àdduna bépp Jibril ginnaaw biñ la kan Jibril Jibril benn nit la bu juddoo ci lébu yaayam di lébu papam di lébu yaayam nekk papam nekk yaayam yu ay ay ñu daan def fii di organiser fii ñu nekk simb ma daan wayantu di wayantu ba affaire bu dugg ma ba tey looloo ma def tey ma xaw a doon waykat waaw fan la commencé way nan la def ba dugg si way waaw dama doon wayantu ci simb yi rek léegi benn grand léegi sama suñu kër dafa amoon gaal ñu voyage dem Gambie sama benn rak quatre-vingt-dix ci ci ba tey maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla xare àjjana bu ma mësaan band loxoom bu defee nii caaro ñëppay fatu ñu naan ko njaga sama rakk la amoon fit lool daa si bu fi nag su ko ñëwee di wayantu gars yi benn waay bu taal otom fekk ma dama la bëgg yóbbu ci benn si ko ay géer lañ amuñu kenn ku amul nga may commencé su ma demee ci géej gi su doxul ma dem way mbapat ay mbapatu mag sama po yi ñoom bàyyi ma njoon di fa ñëw ñoom ñëpp su ko defee su géej gi amul dara ma dem fa jàppale sama yaay ci dépense ma am si nak ñaanu yaay loolu di dem di dem ma tok ba un bon jour rek may wayantu dégg ñu ne Youssou Ndour dafa organiser ko pour xeex fekk boobu waajur naan Libaas Mbuub na ma 50 min ma dem studio lay jagne def fa ben single single bobu la déposer ci concours xeex si biir bi moom moo fa yobbu sama liguey ak Wata Wat yobbu ma tourner international ma sha allah mais lan mo tax nga choisir way lan mo lu su dugal exactement. waaye yalla yalla yàlla moo ma ci yama tay suma tey ku sañoon bu bu fekkoon li nga bëgg rek ngay doon kon kenn sonn yàlla moom moo fekki woon mm-hmm. c'est que bi may jàng arab anachid yi maanaam way yi nii def ci arab yi man lañ ko doon ma koy way yàgg ma jox nag bat bu neex waaw ci ah. yàlla daal moo ma ci moo ma ci xiir dugal ma ci allah macha allah mais Djibril exactement lan mooy sa relation waa Prince Art non Prince Art amuñu relation wata wat bu ndur la amalon relation te boobu concours xex ci biiru bi mille deux cent fan album yóbbu la tournée international ma ñew yalla def ma gagné ko ñu and dem Paris demé Bercy ma joué bi ñibbisee buuba ne ma le da ngay da nga wara dugg studio bin may o pour ma def studio ma ngi place di sangu secrétaire bu ndur bu nan moana o ma ne ma tay ngay dugg studio bobu sama yaay sax ma daw fekk sama yaay tok ufu ci wetam du jooy na ko ku doon woy ay simb mbapat tey label bu toll nii watawat ak prince art sama gars yi loo ñi bëgg ko li ngay def dina la wax naaj ma dem artiste mi suñu laa ko enregistré barke Seydina yi ko defoon kenn deewu ci ba tey ñu ngi fi dé jour laa dugal yëpp xam nga tey soo doxi woon ba xiif ñu tegal la sa plat préféré da nga koy lekk ba ñeddu bool bi te way bëgg la Djibril aussi ñu seetlu benn affaire ñu seetlu dafa amoon benn moment boo xam ne kenn déggatu si dara ñu jikki saay euh, nga jikki saay defaat benn sortie lan moo waraloon euh, toogaay bu yàgg bi lan moo tax exactement kenn déggatuloo woon si dara. xam nga boobu tamit gor su diggaale ki nawleem na sàmm baat boobu am na lu ma signé woon ak Bouba Ndour mënu ma woon a bouger di dem feneen mais bi ma demee ba xam ne waa ji am na ci man yéene mais sunu borom antuwul nit a yéene mais yàlla mooy àggale après ci laa dem di góor góorlu nit ku baax di ma fa fekk du ma sax tudd turam. di ma ci jàppale ci laa toog nag di enregistré di enregistré di enregistré ba deux mille dix huit en deux mille dix huit waaw ma génn benn morceau bu nan démaraay di doxalaat ba deux mille dix neuf bi ma génn morceau Saliou Ndione bàyyi ko muy daw di xam ni nag maa ngi ci sama yoon te toogaay bi yàgg na lool mais tamit nit da ngay reculer pour boo nee tekk rek tekk dalay wan yoon. te sëñ bi nit a yàkkamte rek mais yàlla yàkkamtuwun yalla bu yàkkamtuwun nit day judd rek dox l'essentiel buma bu ma fawee suma bopp garder sama dignité sama talent inshallah allah ci katam suñu borom ma ngi jang te gëm naa ne suñu borom dina mais est ce que est ce que yow buuba tardelu la wa ci lima tardel ci la bok mhm. wa deug du dee ci lima tardel ci la bok parce que té tamit duma ni tardé sax parce que 2011 la signé ak ñom génné sama maam li maam ma génn ko 2000 2011 mais boobu ba tey màgg naa fi di fréquenté studio yi xalaat bi gën na fee yokk maanaam yàlla gën na noo defar amaana boobu sax bu ko génnoon du ma mën a gérer succès bi parce que kon dinaan naa ko foog ni bu asamaan si dee daanu su ma nee nii mu taxaw te boo seetloo am na ñu fi njëkk génn tey bi mu génne mënuñoo gérer succès bi loolu leen dugal ci kàmb waaw mais kenn li dama ciy sant suñu ko app la app la app teg naa lépp ci loxom ci carton suñu borom. mais est ce que tamit prince art ñom dañ am sen artiste bop est ce que du lolu aussi motax affaire bi gëna a tardé. loolu ñoom am sen artiste bop man concours la génne aw ma Baranloo aw ma Papa Ndoye aw ma Ndiaye wa bokku mon prince prince art ma ñew ci ak Bouba muy nit ku ma bëgg nak nit ku ma bëgg nit ku ma yek nit ku reconnaître sama talent. magam bo toge mom muy sundur neena man may way katam momo nomé sax ndana wax deug fa yalla kon mooy li ma la wax rek am na yéene ci man suñu borom moo antuwul. est-ce que Djibril yow amoo benn tardement si si wàllu way musique sénégalaise. non non non non mhm. non non non xam lan mooy tardement mhm. nga seq ni benn affaire ngeen ci nekk ci moom mu am ci loo ci amul wala mu dem ci si dem wala mu ci wax loo waxul. affaire yi bu lëloo liggéey rek maanaam qualité ñor tab bi moo gën lu nu gësam mu wadd te boo seetloo léegi grand yi nga xamante ni ñun. ci musique ñi ngi critiquer musique bu Sénégal boo seetloo Guinée sax léegi moo nu gën a développé musique musique léegi parce que léegi musique bi ku génn benn affaire lépp a nuroo ñi génn ñëpp dañoo nuroo kon alhamdulilah du ma ni tardé man sama morso bu la fe bu la neexee nga teg ko ci jumaa jumaa ju nii jàmm yàlla nga teg ko morceau daw dinaa ko jox dëgg dinaa ci def dinaa way doo laaj lu mu wax xaaral dañ dañ gis euh, nouvelle génération bi ñoom artistes yu ndaw yi la ñuy gën a déglu. waaw parce que loolu ku am ndey la ku nga am ndey soo seetloo loolu ñoom mi ngi leen di commencé daaneel dañuy def dañoo am staff télé bu nekk ñu jël fa nit. Mhm. wala ñuy def loo xamante ni yi la wër di woy wala animatrices yi. doo def comme ñoom. non non non parce que loolu mooy teg leen ma dimbali leen ma teg di nga gis naa gis nag hélas fu mu def benn affaire bu yàlla ne yang ci rojo moy la xam nga tay su ma ne man nga nek di anima ma way la par force dag may tek mais touche du bois heure buma xey radio tek ma wala tele tek alhamdullilah rabbil alamin tay luma way boko tege da nga nan tay ji la ko way kon alhamdullilah rabbil alamin donc suñu suñu xol donc dafa am musique dafa am kumu am tay kumu am bay wa pourquoi pas yow nga def comme ñom lañuy def non bu boba lolu hélas mhm. talent dafa gëna a talent kalan mhm. te léegi talent amatul kalan moo gën a bari que kalan mhm. xam nga li ma la wax man nag sama talent bii ma yàlla jox may lébu du ma wanteer suma bopp du ma topp ci ginnaaw kenn mhm. barki Seydina Muhammad ku ma woon nag pour jàppale ma moo mais du ma topp ci ginnaaw kenn man lébu laa may lébu fukki pénc ak ñaar di sëtu Seydina Limaam di sëtu Sëriñ xaw ma lu may dooni ëllëg te koo topp mu yeb la du ma topp kenn mais ku sentir li may def ba ni da ngay jàpp la porte

yàlla bi mu nammee waatee Seydouna Mohamed ñëwaat fii du ñuul mu génn ko ci lébu muy Seydina Limaamul Mahdi kumbandooy di yaayam ñu ne déet mu indi waat Seydina ay Rouhou Laye kon ñun ñun nañ xam lu ñu yor ñun lébu te lu mu wax mu am ku nu ñaanal barki ku bëgg nga ne ci dëkk bi da nga fi ne ku bëggul nga nekk fi doo fi nekk ñun lébu ki may way nag mu doon ku jara hmm, raaya bu ne indi na ko fii ci senegal mu ñu den daggal nit ñi ñuy dem Màkka ñaata nit la fi jàppale ñu am seen dëkkuwaay bopp tey jii am na ñoo xamante ni tey ñi ngi jiite réew mi def na fi loo xamante ni ñi jiite réew mi def ko fi may conseil mosuma wax dara ci ci ci président bu fi toog mosuma wax dara may ñaan Macky Sall teg na fii Diouf Sarr ci Ndakaaru muy ko sant yëpp mi ngi koy def lu waay soxla mi ngi ciy taxaw yàlla na ko fi yàlla saxal mais na duggaat benn dëkk bii dem seet dëkk bu naan yeen dem seeti waaju naan Saliou Ndione mu mu mu mu moom bu boba 5 ans bu maté bëggon bu bëggon dem sax nit ñi ñokay sax sarku na ko toogaat ndax ñooñu ñi ngi dimbali ta yalla yàlla ñi ngi ngi dimbali neew ji doole ji te yàlla rek tax wa parce que ki bëgg ki ko wétali ak ki ak ak ak ku bëgg ku ko xaw ma tëjal buntu bi du len du len du len bolé na dem sétu léegi wax wa aduna euh, peut-être euh, si musique bi wala si bi aduna bi dund nga boo loo xam neex na la torop ba saa soo si wax rek da lay yóbbu sori. Hmm. mu bëggoon nga partagé ko ak suñu mbokku internet yi. li ma dund mu neex ma mooy ma judd nekkoon ci famille bu néew doole lool lool lool ma nekk sama soxna ci basan lañ doon tey sama baat bi bu ma waxoon ay temps dinaa mës dugg avion ma ne la noonu ma daan nekk ci géej gi di def laaw ñuy mbal ay 6 200 mètres ci biir géej gi des fois ñu japp des fois duñ japp dara sama sonu su xey dem yendu ci seen kër tay loolu lepp suñu borom mu koy teggi a garage sama baat té tàllalu ma kenn loxo luma am mu neew mu bari dina ci dem alhamdullah wala nit gis ma nama yow sëñ bi li nga way ci waji kat daf ma neex li ma way li nga way ci say naa daf man am li mako def ci say naa limaam kon sant loolu luma neex la ci parce que Euh, mi maa ngi koy dundal mi ngi may dundal te yàqu ma ci du ma star du ma artiste ndaanaan laa ndaanaan mooy su way jotee nga dem way tey jàng te am kilifa yàlla boole mag kilifa goo xamante ne ne fu ma gis daf may conseil amatuma droit def benn erreur ñeewuma kenn barki Seydouna Mohamed barki Seydina Limaamul Mahdi ñeewuma kenn barki Seydouna Mohamed ku am lu la neex si àdduna mhm. da am lu la naqari loo xam ne dund nga ko aussi mu naqari la torop mhm. saa yoo siy xalaat rek mu yóbbu la fu mun na la man jooyloo sax hmm. macha allah ñu bëggoon aussi nga partagé ko. du ma jooy mais lu ma métti la mooy jour bi ma tiimee sama yaay mu nekk hôpital bu naan sami municipal nekk Grand Yoff mu feebar lool di bind ordonnance yi ma cent franc bu ma ko jëndee paracetamol mu bëggoon ma lool doon suma yaay ñaanaloon ma lool nag. Bouba lu organiser concours taxi bu sama loxo bi la japp yobbu ma Tiwaawan mu ne ma yalla nga jël ndam li ma dugg studio le 27 septembre 2010 enregistré mu ne ma sama dom li nga def kagn la koy déglu septembre octobre novembre décembre sama yaay genn aduna le 18 décembre ba tay ciow li fi nek ni lima way yep yëpp ma sutee dégg dara makoy ñaan ci barke Seydina limamul Mahdi yalla nako yalla bolé booleeg Seydina mu téru ko duggal ko fi aljana mu doon sama xarit lool xamoon na ni man bu mooyee maam li maam day kàttan parce que dañ daan toog suñu mësaan toog suñu kër fii am benn euh, axlu waa kër lu baytu rasul kenn man kenn wàññeeku ci ñu ko yóbbu di ko suuli ñuy def seen sikkar boobu da daan wax naan sama jibril bés bu ma dee nañ ma yóbboo nii non c'est que astafurlah man maa ne ko yaay su ma deewee na ma laay mi ñëw jël si di ma yóbboo nii mu ne ma man tamit su ma dee loolu rek nga ma deseel affaire bi japp na ma may joy ba fàtte affaire yoy yalla na yalla yàlla ci barke sayyiduna muhammad loolu la am luma ma won tan du ma du sax lumay nakari parce que alal bu don konté yalla day saxal sayyiduna muhammad mais daf ko xañ ban koy al alfaqir ku ñak kon alhamdullilah rabbil alamin macha allah Jibril ñu lay ñu lay jaajëfal bu baax vraiment euh, bala ñu dem nak dañ ñuy defal lu neex nga may gaay ñu ñu ñu deglu lu neex baat bi baat bi macha allah waaw. yaa shérifo nga sa wutik maam ba nasaraan baa ñëw yoo lay Matar laay yuxum Mamadou Matar laay sa maam li maamu li maamu yaay borom yoo fi bay lay wota ji bu يا مسار الإنس والجنين رسول الله إليكم ثم يحدث ابن خالد ودندوي في كمبر مكان ما مصر حسين الله نصرا باغي ويو لاي متار لاي سما محمد متار لاي non non vraiment vraiment tey ñu am kontaan vraiment dalal Djibril yow lan mooy sa mot de la fin te lan mooy say projet aussi Djibril sama projet du dara album rek sama projet du dara du suñu borom laa bëgg suñu borom may mu xam nga xam nga tey benn affaire dafa am yàlla dafa bind tey yemoo ñëpp bëgg féete kaw mais suuf du gaay bëgg naa way ba ndaanaan yu mag yi tey ay Youssou Ndour ay Thione ku ci demoon ba bàyyi way ne kan la ñuy jox mii ñu tànn ci bu dee cinq la voilà loolu mooy sama yaa ngi waajal ay tëgg ay soirée wala tëgg ay looy waaj. lébu gi ma génne damaa bëgg jàpp sax bés dem Sorano képp kuy lébu damaa dellu si samay mbokk de lébu yi am nañ ay nit ñoo xamante ni tey dañ leen a dañoo nëbboon ñu war leen a xam mhm. fi tey fii am na ñu fi ñëw tey jóge àll ba bi ñuy ñëw yor mbuus bu cent franc mhm. Wakati yi dañ koy way saggan ñëw ñu teeru la teral la dagal la kër gu baax may la fa soxna utal la liggéey foofu ci lébu rek la am kon ñun waruñoo bàyyi lu nan xam lu nu doon li gën a dans les hôtels moy suñu powukaay kon ñun lébu dañoo war mobiliser wu doon benn barki yonent bi jël nu moom buñ fi wax lebu moo tax ci lébu la jóge lépp ci la barki Seyduna Muhammad yonent bi ci ñun la ci kon ñun dañoo war a mobiliser wu xam li ñu doon waaw te réew mi ëllëg léboo ko war a mën réew mi nag ci kattanu suñu borom. balaa mooy tëj dinaa la laaj aussi sa diggante artistes yi. waaw artistes yi samay xarit lañ. amuloo si kenn problème. Djiby Dramé suma xarit la sama xarit la Djiby Dramé damay dañuy sëqante sax jëflante xaalis sama xarit pire la Djiby Dramé. di nuyu tamit benn tëggkat magay sek ay góor gi njaay asan njaay ñooñu et puis con sek dama tok benn way bu naan papis oma mu pass ma cion cion ne ma lay maktar, dama don dem bour léegi di deglu sa mam mais li nga way est ce xam nga ni amul dama bëgg ñew nga ñew way suma projet momit so set lo sax bi mu ma waxee loolu ma ni alhamdulilah te boo seetloo ni mo waye mam limam lepp dama ko coon sekke parce que amna benu erreur eeru sekke bi nane laylan jadilan jadilan lahuma muhammadu bamba ki deyna ki man momune bamba bamba bamba bamba man mani.

dama ci am jom ndax kilifa gi nekk sama ginnaaw di ma ñaanal waratuma def erreur tuxuma naanu ma sàngara su ma góorgóor loolu waaye fu waay toll ci musique sax soo sàggantul naa la romb ba balay xaar. waaw mbokk yi ñu ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi safoo ndamoo Hann TV di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi ndamoo safoo Hann TV tey ñu ngi woon fii si Thiaroye seet si ndaanaan koo xam ne ku am yitte. vraiment baax lool mën li muy def macha allah nag mu génn lu bees tax tax tax muy morceau si lébu yi ñu koy jaajëfal bu baax di nuyu sama équipe technique nag parce que lii su amee ñoom ñoo tax neex na macha allah ñu koy jaajëfal di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi bëggee Hann TV ñu leen jox di daje si beneen émission si l'invité merci ya shérifo Ousseynou Laye leeral nga sa wotik